ziare naa bu baax Waly ça va. alhamdulilah sama jigéen bu baax bi. ça ñoom lay ziar bu wér. léegi léegi am nañ sëriñ bu jigéen. waaw sëriñ sëriñ ñun ñëpp nag. moo topp bamba bamba mooy taalibe bu mujj bi. baaru man si laa bokk de ba kii. ñoo leen hmm. maa ngi leen di euh, bëgg si seen euh, plateau bu rafet boobu di leen di ñaanal jàmm yàlla nag plateau bi. mu mu doon mujjantali plateau. Mm-hmm. yàlla may leen jàmm may leen sutura. te mm-hmm. suturaa leen it. jaajëf. Euh, mm-hmm. ah. mbir am na de. mbir am na baadu. <laughs> mbir am na de. <laughs> Eh, am na lu beesaat quoi. premièrement fi may jiitoo moy soxna soosu. ñuy wax xaw ma Ndella Madior xaw pas. kooku moom. Euh, démb rek maa ngi doon gëstu ay mbiram mais bu amul jàppale dëgg dëgg dëgg dëgg hmm. amaana mun nañ ko condamné mais nag dama gis ne. Hmm. man moom sama participation boobu fu fu mun a toll si addina hmm. na ma ma génneel juróom-ñaari ginaar yu weex mu mu rey ko. bu jaxase yàpp wi def ko ñetti saam pour moom mu jëlaat juróom-ñaari cent franc saam bu nekk mu teg ci cent franc yàpp jooju nag bu ko defee ay saam. maanaam du du ginaar bu nekk lay joxe de maanaam bu reyee set bu reyee set ginaar yi ba pare. Hmm. maanaam da koy boole. dagate ko boole ko def ko ñeenti ñetti saam saam bu nekk mu teg ci cent franc jox ko ay xale. même bu fekkee mag mag la ko bëgg a jox sax na ko jox xale mu jox ko yaayam wala wala mu jox ko keneen beneen bi ci topp yàlla mun na ko suturaal génnee ko fa mu nekk mais du yomb mais loolu rek mun na ko suturaal loolu kese loolu moom man maa ko may man tamit sama participation boob mooy ànduma si lu mu def ànduma ak keneen ndaxte moom dafa bëri ay complice du moom kese sama xam-xam li moo woon dafa bëri ay complice kon dèjà complice yooyu tey la puusoon Sonko si lii mu nekk i pour moo puusaat ndaw si si lu mu nekk nii tey li ko ci fekk mais yaa kii moom mbiram mun na gën a oyof yàlla mun na ko suturaal boo gars yi jéggal ko xam ne dafa am lu bari lu topp si ginnaawam mais moom it bu ca bu ca génnee rek na jéem a xool xam ne bakkan si loxo bu mu mun a jaar si loxo bu mu mos a jaar rek ñu xam ne du kaña bu ñu rey wala xaj bu ñu rey wala ginaar bu ñu rey bakkani doomi adama dafa foor bu yàlla amul len lu mu bind gën ko bëgg lu du doomi aadama kon yàlla bu la waxee ne lii laa gën a bëgg rek loolu dañ ko ko war a bàyyil bàyyil ko ko xam ne moo ñu ko gën a bëgg beneen bi ci topp mooy xaw ma urne ya lañ koy wax xaw ma xama langaa si séeréer bi mu xaw a takk sama lamiñ bi mm-hmm. <laughs> si biir urne ya moor mm-hmm. hmm, lëndëm na de baadu lëndëm na Hmm. lëndëm na ñaari lëndëm lëndëm nag laa gis yoo xamante ne def xoolal kenn hmm. rek laa ciy seen hmm. si biir lëndëm lëndëm boobu kenn kese laa ciy seen mooy waa ji am taxawaay te ñuul mooy kii nga xamante ne en xam nga wax naa Sénégal xamuñ juju démb démb démb démb démb gis naa kii nga xamante ne moom mooy premier ministre taxaw si palais bi def discours woon Sénégal gannaaw su boo dégg boo gisee ma ne la urne dafa la dem maanaam di aha mhm. Amadou Ba nga bëgg wax kon parce que Amadou Ba mooy premier ministre Amadou Ba laa wax directement laay wax Mor Mor man sa taalibe bi du junju <laughs> man xam-xam laay wax man waxuma waxuma sama naf su bakkan xam-xam laay wax loo mhm. xamante ne fépp fu fu ma waxee rek si lu laa ko deg mhm. mu def discours dugg si biir pale bi mais damaa gisaat bi mu duggee si biir pale bi. Mhm. dama gis mu mu fekk fa ñaari nit. Mhm. waaw mu fekk fa ñaar jëmu jim ma foog gën a xamee Idrissa Seck te la bokk daf ko fekk si biir pale bi mu taxaw mu ne yow laa doon xaar keneen ki ci topp gis naa koo xamante ne. Mhm. si waa Pastef la bokk. mu ngi taxaw si buntu bi ko man yow laa doon xaar ñoom ñaar ñu félicité ko wanaat ko gannaaw dugg moom mu dugg ñoom ñu génn won ko ganaaw dem kon lii mooy lii li ma gis. xam naa ne boo paree dinañ waxati mais nañ waxati xam wax chaque jour man bokkuma ak ñoom fi may aw. Mhm. man maanaam man li may gis ak ñoom bëgg-bëgg du benn gis-gis ak bëgg-bëgg du benn. Mhm. loolu moom dama leen koy nangul te lépp lu mu waaye mos a wax waale si lu ñaaw man jégal naa la ko fi nga koy waxee fu muy seddee laa koy baal ma xam ne mbirum plateau la. mbirum Sonko nag loo ca gis. waaw ah, ah, ah, ah vas-y vas-y waaw. mbirum Sonko nag loo ca gis. falaa jëm xam nga du ma jékki-jékki rek dugg dugg lépp dama lay wax détail par détail. Sénégal loolu lañ xam xamuñu nga jaxase wax bi rek après ñu wax ah kii waxu bi dara wala li mu wax dafa jaxase may ma tuuti may ma tuuti rek télé bi télé bi man dafa cee bokk. Mhm. <laughs> beneen bi ci topp moor. Mhm. ba léegi li ma li ma bagage yi woon loolu laa lay wax nii. Mhm. ñu ñëwaat si lii nga xamante ne ba si ba léegi si urne yi laa nekk ba léegi loolu lëndëm lëndëm bi ci nekk dafa mel ni Amadou Ba moom moo fa amagum ndam. si jamono buñ toll nii moom moo téyeegum pouvoir bi si loxoom. beneen bi ci toppaat Ousmane Sonko. comme li ma la wax rek. wallahi la azim buñ bokkoon ndey ak baay te wala ñu wala wala ñu xamante woon mun ma déggal. moor doomi Adama mu ngi ñoddi loo xamante ne génnu si moom génnu si ay njabootam pouvoir deux mille vingt quatre génnu si Ousmane Sonko génnu si njabooti Ousmane Sonko génnu si képp ku jege Ousmane Sonko. Ousmane Sonko deux mille vingt quatre buñ de bu dajale woon addina bi yëpp. ñu vooteel ko doo xam fan la xeli nit ñi di wëlbate ko boo boo woon ko gannaaw ndaxte du bokk du bokk 2024 boobu mënul nekk du lu mun a nekk ndaxte xoolal jamono bi ñu toll may wax di wax di wax di wax ba ba instant yi si début de fin lañ nekk nii. Mhm. ba léegi sama xam-xam li ma woon loolu la ma ko dina di woon kon ka sama xam-xam mënu ma nax si diggante bi. Mhm. mënu ma nax si seconde wala si ñàkk euh, lu lu dul seconde lii dama ko téye si mille yi 2024 ren Mor dama ko téye si sama loxo. sport yi ren dama ko téye si sama loxo. waaw laamu laamu laamu dénkoo quoi. yaa ngi may dégg. Mm-hmm. pouvoir yi deux mille vingt quatre. Mm-hmm. élection yi ak lii nga xamante ne maanaam mooy sport ku koy xëccoo ak man fii ba deux mille vingt six. wallaahi lazim saa yi bu ñu toogee palaatu yow la ñuy pouvoir mais kenn du may pouvoir. mais Waly Waly. waaw. Waly Boy Niang su wala def open press am de lundi la moom Modou Lo. yaa ngi fa nga nekkoon mu ne. ma ne Boy Niang Modou yaa ngi fa nga nekkoon ba léegi. booy ña déggoo li ma la wax. Mhm. yow si combat ah, ah, euh, Modou Lo Ama Baldé. Mhm. ca laa wax ne Modou Lo jamono buñ toll nii mooy bé bête noire yi Pikine. Mhm. ah waxoon waaw mooy bête noire yi Pikine. te jamono biñ toll nii dina daan ba daan ku ku ku ñu yaakaar ne moom mooy moy moo koy daan. gi wax naa la ne boo ma mayoon tuuti rek boo ma mayoon digal yow yaay sama sëriñ boo ma mayoon digal ma wax la booy biy jël booy biy jël couronne bi si loxo Modou Lo. te booy boobu agsi na presque. non non nañ bàyyi nañ bàyyi non nañ ah, euh, baal ma baal ma côté boobu rek xoolal sama euh, sama jigéen baal leen ma côté boobu. Mhm. ba mu daan booy ñaa ba pare. waaw loolu waaw nañ bàyyi ba mu daan booy ñaa ba pare. waaw waaw ba mu daan booy ñaa ba pare ma ne diw moom mooy jël couronne bi si loxo Modou kon man nañ jàpp na Modou Lo moo daan booy ñaa. déggoo li ma la ba jamono biñ toll nii ba tey ba suba. Mhm. li ma teg sama bët nii si sama xam-xam. Mhm. Modou Lo moo téye victoire bi mais wax naa ko ne ko na na ma bàyyil xel ne. na wàññi bépp doomi aadama fu waay joge sës ko mu yaakaar ko ne war na mën a jël galaaj jox ko ko mu nangu ko loolu na ko bàyyi ndaxte wax naa la ne am na ay complice si combat bi yu bari ñu nekk diggante xam nga bi nu mu nuroo euh, kii nu nu ma nu ma diggee bamba moor mhm. mhm. mu ma mel ni Yékini ak euh, Yékini ak ak ak kii ak Balla Gaye mhm. Yékini ay mbokkam ñoo ko daan ay mbokkam ñoo ko wor ngir yàlla waraat ko tamit ngir wax ba mu waxoon ba pare mbokkam mi dañoo gëmoon loo xamante ne du dëgg du yoon ñu jox ñu jox leen ko suñu koo gis moom moo waral tey ñu daan booy bi ñu daan Yékini mais Yékini xëy na foofu la yàlla yemale woon mbiram mais Modou loo ba léegi laa la wax nii mhm. couronne bi day da koy delluwaat piquet mu delluwaat ko si décision arbitre bu mu leen bett mu daan booy bi bu mu leen bett xamal leen mais victoire bi moom moo ko yoragum jërëjëf leer na. waaw <laughs> merci beaucoup Waly. Cey Waly. ok jaajëf. jërëjëf jaajëf. te mbokk mi dañoo gëmoon loo yoon ñu jox ñu jox leen ko mosuñu koo gis moom moo waral tey ñu daan.